salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey la samedi 24 avril 2021 ñoo ngi ci weeru koor bi di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla defal ñu kooru jàmm lépp ànd ak tawféex ñu fekkee ko ay at yu bari bari bari tamit alors toujours ci saison 5 bi tey dañuy euh, tey ñoo ngi ci épisode 5 ba léegi ñu ci épisode 5 ñu fas yéene découvrir ensemble ay sénégalais yoo xamante ni euh, dañoo jël nouvelle technologie yi dugal ko ci biir mbay mi pour dimbale bépp baykat. alors sénégalais yooyu nag seen start-up wala seen entreprise moo ngi tudd tool bi naka la projet boobu juddoo naka la ñu dugalee nouvelle technologie yi ci mbay mi pour que ñu mën a jàppale baykat yi ci seen liggéey bépp baykat aussi. bu nekk Sénégal wala partout en Afrique naka la mën a def ba mën a jot ci ndimbal boobu noonu mais aussi yan jafe-jafe ñoo nekk ci liggéey boobu noonu parce que yaakaar naa ne war a nekk lu jafe lu difficile nga xamante ni waa tool bi euh, waa startup tool bi ñoom ñoo ko sumb alors pour waxtaan ci loolu yëpp nag dañu si ànd ak suñu invité tey bi euh, di Mouhamadou Lamine kebe jiite startup tool bi nekk aussi ingénieur en télécom alors maa ngi fàttali aussi que ni startup tool bi ñoom ñoo jël grand prix du président de la république pour l'innovation numérique ci 2020 bi maanaam moo nekk startup boo xamante ni moom la ñu gën a ràññee ci wàllum innovation ak xarala yu bees yi alors Mouhamadou Lamine ziar nañu la. alors je pense que koor gi tey sonalu la ndogu nga bu baax pour que ñu attaqué wàcc tey ci tool bi. non non ndogu naa bu baax kon dinañ mën a wàcc léegi ci tool bi. waaw dañoo nañ mën a wàcce yow kay noonu rek. <laughs> alors ñu dem directement donc suñu sujet tey bi maanaam tool bi une start-up sénégalaise pour une agriculture intelligente. alors comme ni ñu ko waxee sànq euh, tey dañoo dugg ci benn sujet bu am solo. mu nekk mbay mi ak xarala yu bees yi euh, maanaam nouvelle technologie yi ñu koy woowee agritech alors événement yu bëri yi ñu passé maanaam ay coronavirus ak yu demee noonu wan nañu ne mbay wala agriculture lu am solo la ci réew donc réew mu ci dem ba nga xamante ni sa population li muy dundee mën nañ ko bàyyil seen bopp alors je pense que réew moomu noonu moo ngi nekk ci yoonu développement dëgg dëgg dëgg alors fii ci Sénégal nag comme yeneen pays yu bëri comme réew yu bëri mbay mi am na ay jafe-jafe yu bëri mais heureusement encore une fois nouvelle technologie am na ay solution pour dimbale baykat yi alors loolu moo tax nag tey jii ñu war a waxtaan ci solution bi nga xamante ni euh, startup tool bi indi na ko alors avant sax ñu dugg ci biir thème bi euh, Mouhamadou Lamine avant ñu dugg ci biir thème bu baax a baax bëgg nañoo xam déjà kan mooy Mouhamadou Lamine Kébé. Euh, jërëjëf El Hadj déjà si dalal bi ma dalal si émission Wolof Tech Euh, émission boo xam ne yàgg naa di ko gis di ko bàyyi xel bu baax a baax di rafetlu liggéey bi ngay def di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñoom ñooy déglu podcast bi euh, pour ñëw euh, si sa laaj xëy wax si sa bopp sax yomb waaye bu ma doon gàttal di résumé tuuti kan mooy Mouhamadou Lamine Kébé damay wax rek ne benn ndaw la si ndawu sénégalais wala ndaw Africa boo xam ne def na ay jàngam si wàllum ñuy wax ingénieur en système réseau télécom. maanaam jàngale luy wàllum transmission de données ak yu demee noonu. ok euh, si euh, école supérieure polytechnique de Dakar mooy euh, jàngale moo kawe mi fii si université Cheikh Anta Diop Dakar donc foofu laa defee samay études. Mhm. donc jot naa tamit def ay études mm, États-Unis si wàllum Draper université pour jàngal lépp luy innovation ak lépp luy entrepreneuriat. ok bu ko defee waaw def na di yëngatu depuis trois ans si li ñuy wax agritech maanaam lépp luy xarala yu bees. yu ñu jëmee si wàllum agri euh, si wàllum mbay mi donc en plus de cela maanaam si loolu may def yeneen activité puisque man sama dama spécialisé dans tout ce qui est embarqué mu damay liggéey tout ce qui est robotique euh, new space ak yooyu ma si yëngu samay activité de recherche donc si gàttal daal loolu laa mu mënoon résumé alors gàtt na mais am na solo trop euh, je pense que jaar-jaar bi nga wax nii mooy wane euh, dayo li nga xamante ni proposé nga ko Sénégal yi et c'est hyper hyper important alors comme ni ñu ko waxee léegi yow yaa jiite startup tool bi ngeen engagé wu pour dimbale baykat yi ci seen liggéey jaarale ko ci xarala yu bees yi alors Mouhamadou naka la projet tool bi juddoo ak kañ ngeen créer entreprise bi. alors donc loolu bu ma si dinaa sawar tontu kañ nan la maanaam mbootaayu entreprise wala startup bu la neexee juddoo mm-hmm. bu tool bi. loolu si benn taxaw seetlu maanaam constat la ñun ba ñuy tàmbali loolu euh, boobu étudiant la ñu doon jàng dafay trois ans de cela boobu boobu ñu noon toog di conceptualiser donc idée ñu gis seet taxaw seetlu bi ñu def mooy dafa am élage euh, mm-hmm. ay xarala yu bees yu bëri yoo xam dafa nekk bitim réew te ñooñu seen doom ñoo koy defar mais xarala yu bees yooyu noon euh, pour ñu maanaam béykat yi nekk foofu ñu ngi koy mën a utiliser mais parce que la moo tax ñu koy mën a utiliser mu leen di jëriñ mm-hmm. xarala yooyu dafa adapté par rapport ak ñoom ñiy dundee maanaam mm-hmm. xarala yooyu ñoom ñaare seen làkk lay doon maanaam day mm-hmm. wax français ñuy dégg français mën ko def. ba pare seen poche dina ko mën a àttan dinañ ko mën a jënd maanaam foofu smartphone wala fa jënd wala drone loolu day mën a àttan seen poche dinañ ko mën utiliser. loolu mooy clé wu innovation léegi bu ñu taxawee seetlu ñu ne ok technologie am na mais la moo tax suñu béykat yi mënuñ si jëriñoo. maanaam technologie yi ce n'était pas adapté maanaam méngoowul ak ni ñu doon doxee suñu maam yi maanaam mm. loolu déjà euh, nekkul woon si olof te ñun fii nii suñu ñi nekk si mbay mi ñi si yëngu li si ëpp mm. maanaam ñoom dégguñu français mënuñu déggu anglais ñu utiliser ay application loolu frais la woon beneen affaire bi mooy euh, dafa cheroon technologie bi dafa cher foofu ay euro la ñuy wax fii mm. franc CFA ëmp la woon euro sa franc fa c'est juróom benn téeméer ak lu ko teg multiplier waaw loo xam loolu day xaw a cher léegi ñu ne nag léegi comme que tey agri mbay mi comme li nga waxee sa tàmbali mi lu am am solo la ñu wax activité historique mhm. loo xam ne depuis première nit bi maam Adama ba léegi mbay mhm. li ñu xam maanaam loolu activité bu fi bees te loolu li ñuy di daan dundee léegi bu fekkee ñun nag tey dafa am defi li ñuy ay défi challenge mondiaux ODD mhm. maanaam pour gën a leeral auditeurs yi mooy ay yoo xam ne àdduna bi yëpp dañoo mbootaayoo ne lii nii moom mooy suñu objectif ñun ñëpp loolu mbay yaakaar naa si la bokk ak lan la ñu fiy dindee xiif donc bu fekkee loolu dañ ko war a def nag dañoo foog ñu gën a jëmmal mbay mi gën ko densifier maanaam gën koo jox yokk ay xarala ba mu gën a mën mucc ak donc si taxaw seetlu ñaari problème yooyu ma la wax maanaam mhm. technologie yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew mhm. dafa adapté wul maanaam ñi mënu ko utiliser ba pare dafa cher si lañ ne nag ñun nan la ñuy def ba jéem a def ay xarala yoo xam ne dafay méngoo ak ñi nga xam ne ñun ak mbaykatu Sénégal ak ñu nekk Afrika yëpp. Mhm. méngoon ak loolu ba pare mucc ayib maanaam euh, seen prix bi day yomb. ba pare mën na saafara ay problématique yeneen yoo xam ne wàllum ndox mi parce que ndox mi mhm. ñu ngi koy sotti rek. Mhm. maanaam suñu suñu genre yi bu nekkee si si tool bi dañuy arrosé rek bu tooyee rek ñu ne tooy na fekk loolu musiba la. bu gàncax comme comme luy dund luy dund la sax. dafa am lu exactement yow bu ñu a mhm. koor gii nii boo naanoon naan naan naan naan ba maat yi na mais bu ñu la joxoon ndox ndox boo boo moytuwul nga am ah. noo dem. c'est sûr. Uh-huh. boo maree tamit loolu baaxul. Mhm. voilà donc dañ la wat li nga rek si ndox. Mhm. par rapport ak yow fi nga toll si âge yooyu noonu. voilà loolu nga soxla. da nga gi tamit noonu. bu mu tollee si phase bu nekk bu mu tollee si phase tuuti di màgg di màgg à chaque instant li mu soxla si ndox du bokk. nan la ñuy def ba béykat bi mën a xam ne. jamono jii nii ñaari litre rek la kii bi soxla loolu moo taxoon ñu daal di def saxaw seetlu boobu daal di jublu benn liggéey boo xam ne c'était pas évident mais ñu ngi si góorgóorlu dem nank nank donc moo mënoon résumé loolu li moo vraiment ñu ñu en place tool bi noonu la projet bi juddoo quoi alors je sais hmm. que c'est projet bu euh, hyper intéressant comme ni ma ko waxee ci début bi fi ñu toll nii actuellement ci Sénégal ci Afrique soxla nañ euh, suuxat mbay mi ak yu demee noonu alors je sais nag aussi euh, mbay bi mbay mi bëri na ay pàcc yu bari yu nekk ci biir am na ay affaire yu bëri quoi tu vois na ay jafe-jafe Sénégal euh, ak feneen ci àdduna bi alors alors yan problème ci secteur mbay mi exactement parce que mbay mi am na cultivateurs yi am na voilà euh, dañuy soxla peut-être xaalis wala pour jënd ay jiwu wala yu demee noonu wala engrais yeeg deme demee noonu wala wala taw bi manqué alors yan problème ngeen constaté yenn ngeen marqué ci biir euh, secteur mbay mi ba décider créer projet bi concrètement mhm. waaw pour mu pour gën a leeral éditeurs yi yaakaar naa comme différents acteurs si wàllum làkkum tubaab dañ leen wax chaîne de valeur maanaam mbay mi dafa am nu mu organiser woo am ay ku nekk day yëngatul te da ngay def bokkul ak seen morom mi def te da ngay soxla sa morom moom la ñuy wax chaîne de valeur agricole maanaam di nga fi fekk baykat bi bu baykat bi pare am na kuy jël transporter transporter am na commerçant am na agrégateur am na banque bi nga xam ne moom mooy joxe financement am na jaaykat bi am na sax ba si yow man ak yow consommateur. am na ñoom ñooy yëngu jéem a indi xaral donc loolu la ñuy wax chaîne de alors problème mbay Mm, yaatu na parce que comme que ay nit ñu bëri ñu bokk la ñu bëri la ku nekk yaa ngi liggéey si sa morom bokkul ku nekk am nga ay problème yu am loolu moom c'est tout à fait naturel mais principalement problème mbay mi lii la euh, déjà bu fekkee si wàllum commencement bi léegi nañ commencé mel ni dañuy commencé mbay mi saison bi mi ngi waaj a tàmbali. voilà exactement ñu ngi commencé foofu fi am parce que dañuy mhm, ne. Mhm. Euh, baykat yi dañoo soxla ay subventions soxla xaalis pour def loolu problème financement dafa am loolu boo demee am na benn. mbootaay bu ñu wax FAO moom moo jiite lépp luy wàllu mbay si monde bi bu ma ko résumé noonu loolu dafa xaatim benn téere maanaam benn étude la def mu ne problème mu mbay mi bokk na si problème mu mbay mi sax laay wax manque de financement yi nga xam ne moom la agriculteur yi am maanaam il faut ñu différencier tam am na ñuy wax les petits agriculteurs même si terme bu kii am na ñu wax les bon am na ñuy wax ceux qui font de l' agriculture familiale maanaam dañuy bay di dundee. ok am na ñoo xam ne ñuy wax agriculture intensive la ñuy def mooy maanaam dañ ay industrie la ñuy def ay ay hectares hectares la ñuy def ñoom bu ñu jaayee dundewuñu dañuy jël jaayee extérieur wala jaay si marché bi. ñi nga xam ne ñooy ñooy bay di dundee te léeg-léeg ñu bay denc ba pare am lu pour mën a ja kiiwal ñooñu problème mu financement day day day ñëw. maanaam nan la ñuy defee am subvention te ñun man ak xëy na am nañ ñu fi ñu egg si njàng man ak yow bu ñu bëggoon financement dañuy bind suñu business plan dem yuti banque bi. Hmm, mais baykat yu ndaw yi ñun mënuñu bind business plan. ok ok ok ba ba pare boo amul business bi du am bien xam nga banque bi tamit. dañuy wax rek te dëgg te de ñoom dañuy bëgg sécuriser seen financement. ah oui seen xaalis bi si ngelaw li dañuy bëgg ñoom dañuy bëgg a seen financement moo tax loolu problème la déjà. ñun xëy na bu ñëwee si solution naa la wax ñun nan nan lañ nekkee di jéem a saafara problème boobu donc loolu wàllum financement léegi ñëw nañ léegi ba ba ba euh, kii bi saison bi tàmbali na comme wàllum engrais day ñëw nan laa war a sàmmee sama sama kii sama sama sama champ maanaam sama sama euh, kii euh, sama terre agricole wala nan laa ko war a mën a sàmmee nan laa war a sama jiw bi nan laa voilà sama terrain bi ba affaire yi war a dem loolu problème bi ba fay am mooy sama intrant agricole bi maanaam da ngay soxla yow def arrosé arrosé moom ndox da ko soxla. léegi nan laay def ba économiser ndox bi parce que ndox mi. Mhm. ñaaree déjà ndox mi day facture la. Mhm. beneen affaire bi mooy ñii dañuy utiliser ay moto pompe ndax man da nga siy def gasoil. waaw si si. donc loolu léegi bu fekkee man nag damay nekk di yàq ndox maa ngi jox gàncax gi lu ëpp li gàncax gi di soxla. Mhm. kon boobu maa ngi yàq ndox benn. maa ngi yàq gasoil kon xaalis maa ngi koy yàq ba pare gàncax gi li li mu waroon produire du ko produire parce que maa maanaam. Mhm. saf ndox bu mu bu àttal day dem ba fot. exactement si si léegi nag conséquence mooy à la récolte bi. Mhm. bu ma waroon am dix tonnes. Mhm. trois tonnes laay am. ok xam nga kon loolu moo mën a jaay li am. ba pare ah, maa ngi ndekete maa ngi ndox mi may yàq tamit xaalis la kon lool déjà foofu problème la. mooy ñaari problème. ok bi mooy wàllum écou ni ñu école suñu marché yi maanaam da gis ñoo xam ne mu euh, euh, ngi koy wax de euh, dañuy produire lu bëri mais après duñ ko amuñu chaîne de froid yu ñu ko denc. wala hmm. ñoom parfois sax buñ produire ba pare sax da gis kenn koo xam ne intermédiaire ñoom ñoo leen di ëpp xaalis amuñu ni def ba écouler seen seen euh, seen production yi maanaam seen liñ bay mhm. li voilà liñ bay duñ ko mën a jëm jaayal seen bopp prix bu baax biñ mirito ñun jaayal ko marché bi ok ok ba pare beneen dernier problème boo xam ne du wàllum agriculteur bi beneen bi mhm. euh, peut-être du ma guddal mhm. euh, ñeneen ñi mooy maanaam tey grande surface am na ay grandes surfaces yu fi nekk maanaam ñi nga mhm. xam ne ñooy supermarché yi. Mhm. supermarché yi ñoom comme nekk si wàllum entreprise lañ nekk ñoom dañuy def dañuy soxla def lu ñuy wax prévision de stock. ok prévision de stock mooy élage euh, moom dafa yor supermarché am léegi ma bëgg xam dans six comme que man sama sama client yi am fii dañ maa wóolu bëgguma dans six mois tomate bi manqué fi. Mhm. léegi ñoom nan la ñuy def dañuy bëgg a def maanaam dañuy jël bëgg a xam Sénégal kan moo fi nekk dans six mois kan moo fi war a paree tomate. ok xam ne bu paree tomate man man mën ko dem jëndi léegi nii jox xaalis avance ko. Mhm. léegi comme ça man man leer na mi dans six mois du ma ñàkk ndax dama nar a perdre ay ay clients. parce que foofu mooy côté consommateur bi. consommateur bi quoi si si. léegi voilà voilà loolu tamit day am problème si consommation donc bu ma mënoon euh, pour un peu def le plan si chaîne de valeur bi maanaam wax xool euh, def xayma si chaîne de valeur bi yëpp ñi fay yëngatu yëpp si wàllu mbay commerçant beeg banque bi donc pàcc bu nekk am na am na problème donc bu naa. loolu mooy nekk problème c'est-à-dire euh, wax nga fi ay points yu am solo c'est-à-dire financement bi problème gars yi mënuñoo bind ay euh, projet pour soumettre ko euh, banque yi pour ñu financer leen parce que jàngu jànguñu seen jàng soriwul peut-être am na aussi problème environnement bi problème ndox bi problème mu magasinage bi c'est-à-dire boo bayee ba pare nga mën koo denc tu vois ak aussi problème bi nekk ci grande surface yi alors je pense que loolu am na solo ci problème yi nga wax yëpp benn bu ci nekk rek je pense que bu ko jëloon tey mën nañ ci waxtaan luy yàgg alors yéen nag bi nga xamante ni jàng ngeen bi nga xamante ni jàng ngeen euh, am ngeen xam-xam ci wàllum technologie yan solution ngeen indi pour régler régler baykat bi problème yooyu noonu. ok ok donc ñun nag euh, yàlla dafa def maanaam comme problème yi ma la wax nii comme que da nga laaj ni moom problème yi nga xam ne moom la mbay am donc dama la tënkal lépp mais ñun. Mm-hmm. solution yi ñu am mënuñu saafara yëpp dañu am rek yi nga xam ne moom lañ jàpp ni. moo si gën a am solo ñu jëm si euh, ñu jëm si focus. ak wàllum technologie ñu indi ndax am na yenn problème yoo xam ne du technologie moo ko mën a kii loolu problème administratif la wala problème gouvernance wala yenn yoo xam ne côté organisation bi mais ñun euh, si li ma la problème yi ma la citeel sànq wàllum ndox mi ñun yooyu lañ ko ciblé. Euh, indi li ñu wax ay objets connectés donc loolu dañu leen si liggéey ay jamono di ko def ñu ay ay xarala yoo xam ne boo ko defee si si gàncax gi Euh, pour résumer la pour leeral boo ko defee si gàncax gi rek dalay wax ñaata ndox la soxla fi mu nekk nii maanaam tey jii nii léegi nii nii nii nii bu ma doon wax ne bu ma ko doon misaal ne euh, gàncax gi mi ngi si euh, deuxième âge am dama jox missal rek. ok deuxième âge ñu xam ne gàncax gi tomate la ñu ne tomate si deuxième âge maanaam chercheurs yi borom xam-xam yi ne tomate bu nekk Sénégal nekk région de damay joxe exemple Kaolack toll si deuxième âge nekk si suufu sangam bu tollee tel jamono rek kon lii la soxla si ndox. léegi nag loolu dafa am sew sew maanaam du caaga ne rek ne cinq litres ndox la soxla rek cinq litres yow nga koy jox ndaxte am na lu nekk dèjà amaana taw na démb am na lu nekk si ndox si si gàncax gi xam bu fekkoon cinq litres la la soxla. Mhm. am trois litres d'eau yu nekk si gàncax gi kon yow ñaari litres rek nga ko war a jox. ok ok je vois. Mhm. voilà léegi nag xarala bi nag day xam dèjà euh, gàncax gi ñaata litres la soxla wa calculer aussi ñaata moo nekk si si suuf si. Mhm. léegi nag kon mën a xam ne. ne baykat bi bu fi def juróomi litre def rek ñaari litre loolu doy ok donc bu pour ñëpp mën a comprendre donc loolu benn solution objet connecté la bi mooy euh, voilà beneen bi mooy comme li ma ko misaalee am na ñoo ne dañuy def dafa am ñoo ne dañuy bay di ñoom la ñuy wax agriculture ceux qui font l' agriculture familiale. Mhm. am na ñoo ne agriculture intensive mooy ñi ne ay hectares hectares donc ñun liñ proposé benn solution donc ñun tey maanaam élage boo amoon cent hectares. Mhm. bëgg a maîtriser yow sa def ay prévision de rendement bëgg a xam d'ici yow kañ la sa récolte bi di yem ba nga mën a jaay wala nga bëgg xam engrais bi fan lañ ko war a def parce que engrais bi lu caaga ne rek tamit fay nga war a siw cent hectares yëpp xam loolu day jafe nga mën a dem. boor bu nekk wala nga war a xam gàncax gi fi mu nekk nii est-ce que feebar nañ wala feebaruñ am na benn mhm. solution boo xam ne. Mhm. ay image satellitaire la utiliser utiliser bu ñu wax benn xam-xam bu ñu wax photogrammétrie. ok donc benn genre xeetu bu ñu mënee machine learning IA sax mais ay ay algorithme la ñuy utiliser bu mën a appliquer ko si image yi pour mën a xam détecter maladie yi très envoyé ay rapport maanaam ñi koy utiliser di utiliser di euh, jot ay rapport automatisé di xam est-ce que gàncax yi nañ ñaata pour cent ñoo malade fan moo malade ñu mën a def ay ay kii donc ñun si côté boobu lañ lañ lañ spécialisé wàllum si moment bi nga xam ne foofu la ñuy nekkee di defee production voilà foofu la ñu nekkee di def moment mbay mi waaw am na nag benn solution boo xam ne ñu ngi koy fi mu nekk nii si liggéey ak euh, yenn acteurs yi bu wax e bi donc boobu c'est benn xarala a fédéré acteurs chaîne de valeur yi même ba si banque yi ñu mën a utiliser ay données sànq lay wax ne la suñu maam yi baykat yi amuñu mënuñu produire business plan ñoom ñun si plateforme dañ leen bëgg di leen defaral ay business plan automatique. ok yoo xam ne ñoom dañu bu ñu xamee seen géolocalisation rek dañu utiliser lu ñuy wax ay données historiques ay données satellitaires pour mën a produire ay données yoo xam ne dina permettre banque bi jël ay décisions ne ah élage mii moom ñëw na laaj ci dix millions ah dix parce que xool nañ cinq années yi passé gis nañ production te sax. kooku baykat bi moo koy ñëw di ko indi mais données yi ñu utiliser la dina ko mën a layal. Mm-hmm. ci place am. ci place am quoi alors je pense que. li voilà donc fi mu nekk nii noonu. ok je pense que li nga expliqué nii am na solo trop euh, alors mais pour nit ñi gën a euh, comprendre c'est-à-dire bëggoon naa xam c'est-à-dire wax nga benn solution bu tudd tool bi pro n'est-ce pas alors comme man aussi dama sopp comme ni ma koy waxee xool naa seen site bi gis naa ne am na tool bi pro am na tool bi connecté. am na aussi e tool bi ngay wax noonu quoi alors li ma bëgg noo xam mooy déjà da ngeen am euh, benn dispositif boo xamante ni moom ngeen di liggéey c'est-à-dire benn drone la maanaam benn avion mooy avion yu ndaw yooyu noonu tu vois pour ñi nga xamante ni xamuñ ay avion yu ay xaw ma hélicoptère xaw ma avion nu ma ko mën a waxee noonu <laughs> yu ndaw yoo xamante ni waaw ay roppalaan merci beaucoup tu vois ay roppalaan yu ndaw yoo xamante ni hmm. ñooy ñoom ngeen di envoyé ñuy daw di tiim tool bi suñ tiimee tool bi dañuy photo tool bi euh, jël ay image euh, jege ko jël ay image léegi image yooyu nag da ngeen koy envoyé ci benn serveur peut-être wala benn je pas benn machine boo xamante ni mooy saytu image yi pour wax ndax plante bi am na ay problème wala ndax soxla na ndox wala yu demee noonu n'est-ce pas noonu lay doxee Hmm. nest pas. bu ma juumee rek corrigé ma parce que man tamit maa ngi jàng fi mu toll nii ci yow lay jàngee. affaire non la. <laughs> sax dafa mel ni yow da xam ah, ok. voilà donc du coup euh, bi ma liiree aussi ci euh, documentation gis naa aussi ngeen di wax ne euh, technologie boobu noonu war nañ ko mun a commander da ngeen koy commander c'est-à-dire nit ki mun na toog commander ko par voix c'est-à-dire ci kàllaamam ci waxam. c'est-à-dire wax téléphone am rek ne. Euh, dafa lii je pas naka lay doxee mais est-ce que mënoon nga ñu duggal un peu euh, ci aspect boobu noonu naka la nit ki naka ngeen di utiliser. Euh, drone yooyu pour mën a jël message yi gis naa aussi ngeen di wax benn technologie bu tu vois ak yu demee noonu ne soxlawul sax ngay am téléphone bu am internet soxlawul dara. puce rek ngay soxla pour mën a dawal dawal dispositif boobu yooyu alors est-ce que nga ñu duggal ëmp ci aspect boobu noonu. waaw léegi kon euh, xam naa solution tool bi connecté nga tool bi connecté sax moom mooy gérer wàllum ndox mi mooy bii calculer maanaam tool bi connecté xam nga boo boo boo boo fàttalikoo sama njëlbeenu wax nee naa la euh, li taxoon ñu njëkkoon a sancal tool maanaam dañu bëggoon adapté technologie bi mu adapté par rapport ak liñ nekk di def nii Sénégal contexte bi léegi ñun liñ problème ndox mi bu ñu ne dañoo seetlu ñu ne ok bu fekkee dañoo def xarale bi. Mhm. mu calculer ndox mi. ok bu fekkee bitim réew ñoom information bi pour nga a jël décision parce que boo xamee nan ngay xamee ni da nga war a def ñaari litre ndox. Mhm. bu fekkoon bitim ñoom day am day day ñëw si application ñoom seen làkk dafa développé dafa sotti am na mbind. ok dañ ko mën a lire. ok bu fekkee ñu ne kon bu fekkee da ngay def design center euh, kii customer design. wala maanaam nga euh, nga def euh, nu ñuy wax design centré à sur l'utilisateur nga def benn produit boo xam ne defaroo ko ndax sax xel mais na nga ko defar pour ki koy utiliser. ok léegi ñu ne ok bu information bi ñëwee foog sama maam suñu maam yi lañ jël rek wala suñu waa dëkk ba ñun comme que fa lañ jóge ñu ne léegi nan la ñuy def ba information ñoom ñu ne ok léegi nan la ñuy def ñun boo xoolee suñu baaxi maam maanaam ñun suñu histoire sax si par par voie la ñëwee par oral. dañu wax voilà ñun amuñu bind par oral kon ñun dañoo tàmm voix lu lu lu sacré la suñu maanaam ñun dañ daan dajale sax si euh, l'arbre à palabre lañ koy wax suñu maam yëpp toog ñun ñuy raconté donc voix dafa nekk lu même Kocc Barma sax boo xoolee loolu moo tax mu gën a exactement donc juste pour dire que léegi ñu nekkoon léegi nan lañuy jël buy ñëw dañ koy def si si euh, voix lañ koy wax maanaam muy wax ok léegi voix boobu noon comme que suñu maam mënuñu utiliser béykat yi smartphone bi day cher si ñun donc dañuy def de sorte que képp ku yor téléphone Nokia simple sax mhm. information dina mën a ñëw si ñun. léegi information yi par voie lay ñëw benn appel automatique rek ngay jot ñu ne ah El boo boo duggee euh, YouTube boo boo tapé tool bi connecté di nga gis benn exemple benn documentaire bu trois minutes bu ñu defoon. ok donc boobu da lay ñëw rek woo téléphone nga uyu rek mu ne la euh, bu bu ma kii mu koy waxatee euh, bu fekkee da nga bëgg xam ñaata ndox nga war a roose bësal bouton un bi su bu la neexee. ok bu fekkee da nga bëgg a xam ay xibaar si jaww ji bësal bouton deux boo bësee un rek. automatiquement information à temps réel moo lay ñëw si olof ne la euh, ginnaaw ba xaymee li nekk si tool bi da ngaa war a roose ñaari siwo ak ñetti potu ndaal. waaw waaw ça c'est extraordinaire. te loolu calcul temps réel la bu muy def calcul temps réel la muy def si si jaww ji. ok ok donc ñun loolu lañ saafara problématique parce que dañu wax problématique solution concrète boo xam ne mooy saafara problème boobu donc euh, voilà donc tool bi connecté moom mooy. kit d'objet connecté la maanaam ay dispositif la daal ay ay matériel la bu ma ko mënee wax ñu ñu mënul xamul technologie ay matériel lay électronique yu ñuy utiliser léegi sim card bi wax noon nag mooy information bi ñuy joxe maanaam ñett ñaari siwo ak ñetti potondaam yi xam naa dinañ neex a bu fekkee yow di nga ko neex a comprendre mu ñuy wax NLP. NLP waaw. Mhm, maanaam mhm. natural language processing. maanaam exactement euh, information bi muy joxe du benn information boo xam ne c'est pré-enregistré. ok ok mais euh, xam nga euh, tey boo xoolee olof par exemple base six la. Mhm. base six bi ñu ko waxee mooy maanaam boo jëlee euh, benn mhm. ñaar ñett ñeent juróom à partir de juróom rek si ngay composé yeneen chiffre olof yi da nga naan juróom ak benn juróom ak ñaar si si juróom ak ñett moo mhm. ñu naan olof base six la donc si bas ña ñetti ñetti cinq nombre rek lañ soxla woon si olof si cinq nombre yooyu si lañ composé ba mille compté ba mille te loolu du enregistré dañ koy enregistré ak ay algorithme pour pour après ne n'importe quel par exemple bu système bi joxee dix litres parce que en fait li ma fàttee wax comme que loolu Simca moo koy def benn technologie bu ñu créé la ñun Sim moo wax ne képp ku am Sim rek technologie bi soxla smartphone boo sox boo amee puce téléphone rek dañ ko soxla léegi cas bi mooy bon c' était l'honneur à celui qui mi mis en place. parce que cas la la santam commencé. donc pour wax ne léegi euh, boo jëlee par exemple calcul bi nu ñu ko defee léegi dañoo ne euh, mbay ñi baykat yi ñoom. Euh, seen surface maanaam euh, ñoom ba demee def benn visite dañoo gis ni béykat yi ñoom seeni seau bi ñu utiliser seau bi dix litres ñu ñu xool seen poto ndaay calculer ko mu nekk un litre mu nekk un litre ñu ne ok léegi bu fekkee dañoo calculer avec information ñu jot léegi information yi jox ñu ne si mètre carré douze litres lañ fi war a def léegi ñun système bi day convertir affaire ne ko comme que douze litres c'est un seau de un de dix litres et deux pots de deux litres léegi kon système bi daf koy wax da ngaa war a roose benn seau ak ñaari potu ndaa. ok ok je comprends très bien li nga wax nii je comprends. voilà voilà pour faciliter l'information prise de décision donc loolu la SIMCA nag loolu moo tax technologie bi ngay tudd noonu c'est inclus dans. dans mhm. Tolbi Connecté et ñu ngi koy utiliser sax ñu ngi koy waaj a utiliser di ko gën a développer parce que c'était juste en en kii bêta mais ça nous permettait au moins doon nañu jëriñ mën a régler ay mais après nag comme que NLP gën yaatu. parce que loolu modèle limité la quand euh, limité de domaine dans NLP donc ñu ngi koy gën a jéem développer pour inclure que c'est une solution donc pour bañ a parole bi mhm. voilà loolu Simka ak tool bi connecté moom mooy loolu moo nekk seen njëriñ quoi alors je pense que li nga wax ni euh, daf ma indi ci beneen euh, daf ma indi sax en plus beneen idée cest dire parce que jamono yee passé invité woon naa benn waay ju ñuy wax benn Pape Sega Pape Sega alors hmm. Pape Sega moom aussi dafa créer oh, voilà dafa créer benn ca benn voice bot boo xamante day wax olof te ñu ngi koy jéem a hmm. euh, yaatal sax pour que mu mën a wax yeneen langue je pense que kooku noonu euh, ak li nga wax ni ci hmm. NLP bi li ngeen bëgg a li ngeen intégrer déjà ci seen affaire bi nii voilà c'est c'est c'est c'est franchement une collaboration qui peut être boo xam ni war na mën a nekk sax pourquoi pas tu moom aussi mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo alors Euh, mm. alors je pense que euh, wax nga ñu déjà technologie bi ak naka lay doxee ak drone yi ak yu demee noonu alors euh, liggéey bu mel noonu nag je pense que nekkul da ngay toog rek derrière sa ordinateur. mais dafa laaj aussi wàcc ci terrain bi rencontrer acteurs yi xam ni mbir yi doxe parce que yaa ngi may wax léegi ne ma siwo yi foog ngeen xam ñaata litre la fii nii pour mun a voilà modéliser si li ngeen di def pour mun a mu gën a efficace alors tey jii fan ngeen toll ci ci liggéey bi est-ce que yéen ngi accompagner ay baykat yu bari mais aussi ku bëgg euh, ngeen jàppale ko ci euh, ci toolam naka la war a def euh, fan la war a jaar ba ba rencontrer leen ba gis leen pour ngeen jàppale ko ak naka ngeen koy jàppale. ok donc jamono ji moom ñu ngi liggéey ak suñu stratégie d'entreprise pour gën a mën a toucher beaucoup plus de d'agriculteurs surtout ñoo xam ne li ñu wax ceux qui font de l'agriculture parce que pour un peu leeral ñoom boo seetloo chiffres am quatre vingt pour cent maanaam boo jëlee téeméer yu nekk. Euh, juróom fukk yi ak ñeent yi si si wàllum euh, agriculteur ñëpp ay ñuy ñuy bay du dundee la. ok te ñoom boo xoolee boo jëlee terre agricole yëpp maanaam boo jëlee euh, tool yëpp yi nekk si àdduna bi ñi nga xam ne ñooy bay di dundee ñi wax les petits agriculteurs ñoom ñoo yor boo téeméeri tool yoo jël yoo jël ñoom ñoo yor juróom fukk yi ak juróom ñaar fukk yi ak juróom yi tool ñoom ñoo ko xam nga ñun mënuñ leen fàtte si bu fekkee da nga bëgg a développer mbay dëgg ñun mënuñ leen fàtte. non non loolu ñun dañ nekk di liggéey ak agence yi nga xam ne agence étatique yo xam ne ñoom ñoo nekk di accompagner agriculteurs yooyu pour ñu mën a gën a jot en masse benn benn bi doon bu fekkee peut ñi ñiy béy dundee da doon xaw a pour infrastructure logistique boobu doon métti suñu donc ñun am na agence agence bu ñuy wax ANIDA. Mhm. mooy mooy benn agence étatique la maanaam benn mbootaay boo xam ne si nguur gi la benn pàccum nguur gi la. ok euh, pàccoo tamit si lu ñu ministère bu yor wàllum yëpp muy mbay mi donc ñoom day day accompagner ay agriculteurs. ok ok donc di financer ay jeunes ak ay ay jigéen. ok ay ndaw ak ay jigéen. donc ñun instant ñu ngi liggéey ak am na benn programme boo xam ne ñu ngi ko dëmbal si juróom-ñaari région si biir Sénégal pour toucher euh, téeméeri euh, ak fukk GIE. boo xam ne dina dina dem ba dina toucher ay ay téeméeri téeméeri baykat donc ñu ngi nekk si benn programme bu demee noonu. bu fekkee wàllum tool bi pour bi nga xam ne dañ ko jagleel maanaam ñi nga xam ne euh, agriculture intensive la ñuy def maanaam nga xam ne ay hectares hectares la def ñu ngi travailler ak ay euh, juróom benn entreprise donc ay B2B société yoo xam ne ñu ngi utiliser euh, solution pour mën a jëmmal seen mbay donc képp koo xam ne na mën bëgg am benn jàppale mu noon entreprise bu mag la wala mu doon benn GIE wala ay coopérative parce que bëgg nañ bu bëri di liggéey coopérative yi pour déployer solution yi mën nañu contacter suñu suñu numéro téléphone suñu service commercial. wala mu binduñu benn mail wala mën naa joxe sama numéro numéro service commercial bi 77. 942 80 94. incha allah exactement dina dinaa jël information yëpp après nga jox ma ko ma def ko ci description podcast bi comme ça képp kuy déglu podcast bi rek di mën a gis information yi numéro téléphone yi seen site web bi email yi comme ça ñu mun leen contacter parce que bëgg naa bu baax bu ñu ko dégloo bu ko baykat yi dégloo gars yi ñëw pour liggéey ak yéen aussi parce que man euh, bëri ay mbokk kaw ay bay baykat ah Saloum Saloum là tu vois donc euh, voilà war nañoo gars yëpp a ñëw euh, a a mbay mi gën a gën a avancé alors li nga expliqué yëpp je pense que ñàkkul mu am ay jafe-jafe yu ngeen di rencontré donc yan jafe-jafe yan difficulté ngeen di am ci liggéey bi moo xam mu nekk ci terrain bi ak baykat yi wala je sais pas ñuy financé wala aussi ci wàllum technologie bi nga xamante ni moom ngeen ñi jëfandikoo pour régler problème yi. donc euh, bu fekkee xam nga adoption dafa am maanaam nga fekk nit nit moo baaxee loolu bu fekkee dafa am lu mu tàmm. Mhm. pour mën ko ko ci jëlee Euh, excusez-moi donc euh, comme que technologie lu bees la. Mhm. pour nga mën ko béykat yi commencé ko tàmm ko jëfee day xaw a day xaw a métti. dina ñëw nag mais dafa mhm. soxla nànk dafa soxla pédagogie dafa soxla aussi def ay preuves aussi ñun tamit pour fàttali ko benn jeune startup lañ donc voilà am na dafa am ay défis dafa am ay exigences donc dañuy dem par nànk-nànk demaguñu fu sori mais ñu ngi espérer daal suñu suñu mbébét mooy vraiment agriculture. maanaam mbay mi doon benn mbay bu bu mucc ayib bu am solo mën a dundal ñëpp ba mën a def ay lu lu am solo si économie bi donc déjà adoption bi maanaam nan la ko béykat yi di mën a jël approprier wu solution bi te loolu voilà dafa soxla comme que technologie bu bees tàmmuñu ko ñoom dañoo tàmm ñu daan defee si jamono yu maam yi pour leen fi nag day jafe pour wax la benn anecdote rek am na benn maire ndeysaan ñu waxoon ne ko affaire bi yëpp ni muy demee mu ne ma doom ma ko waaw mu ne ma man bu euh, gàncax gi rek xam ma ñaar lay soxla si <laughs> donc voilà macha allah mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko waaw loolu am na solo dëgg la mu ne ko mais uh-huh. euh, yaay booy mu ne ko mu ne waaw mu ne ko maanaam xarale moo toll foo xam ne uh-huh. nit dafa am ay limites ah, si si donc xarale yi nag day ñëw rek di mottali nit mais yàlla xam na ne du du du du soppi agriculteur wala du ko def jox naa ko sax benn anecdote ku wan na ne ko pour un peu wax ko xarala bi fu mu toll waxoon ne ko voilà am na ñoo xam ne sax da ngay gis benn jigéen boo xam ne day day yor ëmb maanaam dem ba jigu sept mois cinq mois ñu dindi si doom ji faj ko dugalaat ko pour waxoo rek waxoon ne ko voilà ne ko fi xarale toll daal médecine voilà pour ëmb xool xaw ma ba xam exemple bu baax laa ko jox. bu ko jox dama ko sensibiliser. Mhm. sensibiliser un peu pour wax ko parce que ñun tamit bon tool bi tamit du du man kese mais am naa ay sama yeneen collègues yoo xam ne ñoo ko mettre ensemble et am na ñoo xam ne dañoo jàng wàllu mbay si si école yu mag ba pare xam luy sociologie rurale xam nañ ñi di donc ñun. adoption boobu noonu daal benn si défi la. benn si défi la bu ma bu ma jàpp ni moom moo ci gën a am solo. ok alors man man man na mun man xalaat naa ne sax aussi euh, maire yi ak paa yi ak jeunes yi nekk ci euh, campagne bi c'est-à-dire di bay et tout ça. solution bi nii euh, mën leen dimbale c'est-à-dire c'est-à-dire même bu fekkee da nekk imagine toi xam nga mère bi def na ne damay xool bu ma xoolee gàncax gi rek xam naa lim soxla alors mais yaay booy da ngay déplacé wu dem ba ci gàncax gi xool ko mais léegi le temps ngay déplacé wu noonu peut-être mënoon na am mënoon nga nekk benn bërëb. bàyyi ay automate c'est-à-dire ay robot ñoom ñu loolu yow nga koy commander à distance peut-être nga mën a xam ne nii di nga mën a nekk ci yeneen affaire tu vois alors je pense que gain temps boobu noonu mu leen di defal ak euh, coono bi muy wàññi c'est-à-dire xam nit ñi en dañuy valoriser coono tu dañuy valoriser coono tu oh, mais gain temps ak gain coono boobu noonu tu je pense que am na solo bu baax te bu ñu leen ko expliquer dañuy ko comprendre parce que sax des fois boo demee ci àll bi di gis ay jigéen ñoo xamante ni sax dañuy toll diggante mais nga gis leen ci bi ñu nekk di euh, voilà di ci bay surtout boo demee côté Casamance ak yu demee noonu tu vois da nga koy gis yu demee noonu tu vois alors je pense que seen solution bii nii euh, non beneen affaire la boo xamante ni mën na dimbali fi mu man fi ma koy séen sax voilà sori na sori goo xamante ni je pense que war nañ mën a créer ay agriculteurs Sénégal yoo xamante ni ils seront les big boss de la du pays nekkee ci yeneen pays yi quoi voilà je pense que loolu c'est hyper important alors léegi nag euh, am na benn affaire bu am solo boobu aussi a à dire mooy euh, mooy compétence yi alors liggéey bi ngeen di def nag liggéey bu rëy la je pense que nekkul lu yomb laaj na ay compétence yu bëri gis naa aussi ci seen site bi que ne euh, que ne équipe ngeen comme ni nga ko waxee léegi alors yan profil ngeen dajale ci seen biir pour mën a doxal liggéey bi nii ba mu baax a baax ok alors nous bon ñun laay wax comme si olof teg lañ nekk. <laughs> donc ñun am nañ lu ñuy wax euh, ingénierie en système embarqué maanaam système embarqué mooy électronique bu bu pur bi. ok euh, am nañ agronomie ingénieur agronome am nañ ñaar sax. Hmm. ñu ba mën ci li ñuy def. am nañ aussi financier. ok manager. Hmm. muy muy saytu lépp luy marché bi xam euh, produit bi kañ lañ koy dugal est-ce que léegi lañ koy dugal est-ce que marché bi ok am nañ aussi développeur. moo xam ne solution parce que embarqué bi moom électronique bi la mais am na koo xam ne ay développeurs sax laay wax yoo xam ne ñoom wàllum teg bi rek la ñuy gérer mooy application bi. ok euh, voilà am nañ loolu am nañ aussi yenn am nañ ay stagiaires yoo xam ay ndaw yoo xam ne ni ñu ñëwee dañu leen di dugal ñu indi li man mën ñu yokk leen xam-xam ñu ñun ñëpp ñu booleandoo ñoo xam ne dañ si jaaree am ay liggéey am xëy mais aussi propos maanaam nekk daal si li proposer seen solution seen xam-xam ñun ñëpp ñu jëmandoo daal donc pour pour gàtt voilà profil yooyu noonu lañ am profil yu assez assez diversifié man jàpp naa ne loolu aussi lenn la suñu force. ok ok alors alors alors yaakaar naa ni lii nag moom mooy firndeel que euh, benn nit mënul def lépp il faut que ñu àndandoo. boole suñuy xalaat ak suñuy mën-mën euh, kii nekk informaticien kii nekk financier kii nekk comptable ñu booloo pour mën a créer ay mbir yu yoo xam ne ni euh, voilà dina jëmale réew mi kanam comme ni ñu koy waxee à chaque fois il faut que Sénégal brille dans tous les domaines alors man dama balaa ma koy fàtte sànq nii am na benn xalaat euh, question bu ñëwoon ci sama ci sama bopp. c'est-à-dire bëggoon naa xam aussi naka parce que xam naa ne liggéey bi ngeen def di wàcc di wax ak cultivateurs yi peut-être laaj na aussi euh, communication c'est-à-dire mën communication mën a xam euh, ni ngay waxee ni nit xam seen état d'esprit tu vois ni ñuy xalaate comme ni nga ko waxee sànq avec sociologue yi tu vois alors euh, naka ngeen di doxalee affaire boobu c'est-à-dire da ngeen di yéen ñenay wàcc vers les cultivateurs pour liggéey ak ñoom wala dimbali leen wala da ngeen leen di xaar ñoom ñu ñëw contacter leen wala dafa am ci yenn kuréel yu ngeen di jaar pour dem ci ñoom naka la interaction boobu di demee. waaw am na ñaar yi nga mujjee woon am na boo xam ne dañuy wàcc dem ci ñun. maanaam mhm. coopérative yi dañuy ciblé. am na benn boo xam ne dañuy jaar si agence comme ni ma ko waxee woon. parce que bu fekkee wàllum jege par kenn kenn bi si du stratégie bu bu buñ jàpp ñun bu bu gën optimal bu fekkee da ngay doog a door maanaam énergie bi ngay def pour dem si kenn kenn kenn boo ko dajaloon pour ñaar rek mën nga ko def si benn agence def ko B2B maanaam de euh, voilà quoi gën a. Euh, cible ñu bëri donc loolu stratégie la rek ku nekk da ngay xool yow sa marché nu mu tëddee organisation bi nga jéem a xool pour toucher le plus de d' agriculteurs donc ñun dañuy jaaree si agence yi voilà ñoom dañuy am seen i données am cible ñoom ñu jël jëm leen jox xarale ñoom ñu mën a accompagner donc am na loolu am na aussi ñun parfois ñooy wàcc si terrain comme Thiès Notto Gouye Diama. ok may benn coopérative agricole bu nekkoon ñoo leen dem cible leen jox leen tester suñu affaire xam nu demee am seen retour mën a basé wu sur information yi pour mën a xam nan la ñuy mën a extrapoler pour ñeneen ñëpp. donc am na différent kii mais ça dépend voilà quoi jamono ji ñu moom on est beaucoup plus focus sur B2B bi jaaree si agence yi dem ci agence yi quoi alors ça c'est bëggoon naa xam aussi lan moo nekk seen objectif fii ak ay at ci kanam mais aussi est-ce que yéen a ngi xalaat ci yeneen secteur yi lu ci mel ni càmm gi napp gi wala yeneen ak yeneen. ok waaw ñun moom suñu objectif mooy nekk euh, comme suñu suñu suñu slogan mooy jéem a def. mbayu euh, Sénégal mbayu Afrique benn mbay moo xam ne day mucc ayib maanaam intelligente euh, durable maanaam boo xam ne day day mën a nekk si temps bi wala quoi boo xam ne dina mën a si lépp luy climat ak yooyu yëpp. maanaam ndox mi bu fi ñëwee ak bu ñëwul yëpp ñu mën a jéem a fexe ba mu mën a tenir euh, efficace moom maanaam li nga xam ne moom la mbay mi li nga xam ne moom mooy demande bi ñun soxla ko muy voilà si wàllum lekk yëpp mbay mën ñu ko jox. mën ñu dundal ba bëri mën na tamit teral ki nga xam ne moom mooy béykat maanaam béykat bi daal mën na te tedd am tedd nga si li xam ne moom lay nekk si mbay mi te loolu ñu ngi ko bëgg a jaarale si si xarale yi donc ñun suñu objectif moom d'ici cinq ans c'est euh, déployer suñu technologie suñu solution mu am impact mais pas juste si Sénégal donc si sous région actuellement ñu ngi nekk di xool ay Côte d'Ivoire ak Burkina pour gën a donc euh, loolu mooy nekk vraiment suñu suñu objectif. ok ok mais yéen a ngi est-ce que ñu xool. waaw waaw vas-y. xool yeneen secteur mhm. bon effectivement donc tool bi mi am si. daa bu ñuy wax Teranga Space. Mhm. bu mu bokk boo xam ne dañu dafa yebal ay am na ay ingénieurs yoo xam ne si biir euh, tool bi lañ nekk yoo xam ne ñu ngi participer si benn projet bu am solo. bu tudd Teranga Space pour ay tout ce qui est satellite conception satellite boo xam ne Sénégal moo koy mën a ok peut loolu si ay jima jamono du ñàkk peut-être dinañ si gën a am information mais ñu ngi def ay R&D wala recherche et développement ces technologies lourdes pour jéem a toujours viser wu moo am ind Sénégal Afrique am indépendance en termes de technologie mais quand mhm. ñu am impact carrément suñu société suñu mhm. économie. ok ça c'est ça hyper intéressant voilà affaire satellite bi nga wax noonu moom xam naa non foog ma jege la sax parce que yow foog nga jox ma ay bagage xaw ma lu bëri de man damay <laughs> xaw ma lu tool bi. ah non non non yi non ñë ñëpp utile quoi cest à kenn ku ci nekk ci fi nga fi nga spécialisé wu rek yaa ngi fay wane loo xamante ni lu am solo la te comme ni ñu ko waxee ci début bi rek mbooloo mooy doole donc lu kenn mën ñaar ñoo ko ko daaxal alors ci introduction bi waxoon naa aussi que yéen a prix euh, grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique voilà alors je suppose que voilà xaalis bi bëri na trop là moom je xam naa xaalis bi war na bëri euh, Mouhamed Lamine <laughs> euh, <laughs> ah. xaalis <laughs> parce que en fait li ma bëggoon boobu noonu ngeen euh, ngeen am. ban ndimbal la leen indil ci projet bi ak actuellement fan ngeen toll ci euh, ci tool bi. waaw loolu moom comme bi ñu ko laaja la plupart du temps li may wax li may tontu mooy. Mhm. maanaam ñoo gën a jox responsabilité. loolu mooy njëkk. ok responsabilité mooy maanaam ñun maanaam parce que ëpp la woon ñu maanaam grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique mooy euh, maanaam euh, médaille bi bi gën a mag si lu ñu mën a jox start-up si lu yëngatu si wàllum. Euh, technologie fii nii startup si boppam donc loolu xam nga sax la. en tant que loolu responsabilité dañu jox benn. Mhm. gën ñu yokk jom wane nañu peut être gars yi am ko ñu gën foog ñu gën a yokk mhm. après aussi nag comme que xaalis bi comme ni nga ko waxee <laughs> euh, am na lu ñu tamit jox parce que ñu gën a danser fii parce que tey startup dafa soxla. Mhm. voilà dafa soxla xaalis dafa soxla cash dafa soxla logistique. donc loolu tamit gën ñu permettre ñu gën a renforcer wu gën a am ay matériel loolu la ñu indi. ok alors mais mais ñëwul ci anecdote bi ban anecdote nga ñu bëggoon na wax ci xaalis bi. <laughs> ah non doo <laughs> doo ko gis nga ne bëri na fekk en fait comme que Sénégal rek ñu ñu nii nañ en fait tam affaire entreprise ak. startup yooyu du luñ baaxoo suñu maam yi. si si si yu bi prix bi génnee. Mhm. bi prix bi génnee comme man man maa nattoo man maa nekk bon jiitu tool bi. léegi man la gars yi en fait jox xaalis bi maanaam si presse bi man man lañu dañuy naan Mouhamed Lamine Touré xam ñëpp dañoo yaakaar ni man lañ jox vingt millions en fait donc <laughs> alors tool bi xam nga rek. waaw <laughs> moo tax ba nga waxee léegi. xam naa léegi ay non xam naa xam naa message yi commencé daw xam naa gars yi commencé wo woote yi. <laughs> Ah. waaw kon donc xam naa gars yi sénégalais yëpp a ngi wolof tak donc xaalis bi. tool bi lañ ko jox joxuñu ko Mouhamad Lamine Gueye. ah ok xaalis bi mu ngi ci tool bi. <laughs> Ah, kon nag kon nañ ñun ñëpp kon ñun ñëpp nañ dem ci tool bi comme ça ñu mun a am suñu wàll ci affaire bi mais aussi ñu bay bu ah, baax. pour mun a <laughs> ñun ñëpp déjà nañ dem euh, par exemple comme man Ibrahima c'est vrai que comme mënu ma ah. dem ci Mouhamad Lamine mu jox ma ci xaalis bi bàyyi ma dem créer sama benn tool bu ndaw. ñëw gis ma ah, Lamine ah loolu loolay affaire bi voilà. voilà mu dimbale ma comme ça ma mun a réussir sama projet man tamit quoi. waaw loolu voilà parce que y a beaucoup de choses à faire au Sénégal en am na nu ma ko doon waxee benn kii naan ko. Mhm. ay mucha de mejoría maanaam. ci mhm. espagnol mhm. maanaam am na lu ñu bëri lu ñu war a def lu bëri. ci Sénégal donc fii daal pour man mine dooree la rek. ça c'est sûr il faut que nga am benn taxaw seddu bi pour mën a kii mais. c'est sûr ça c'est sûr alors Mouhamadou Lamine je pense que yegg si nañ presque si jeexitalu épisode bi parce que weeru koor nekk aussi bëgguma la téye fii ñuy wax mënoon nañ fi nekk di wax fa suba ba suba parce que man affaire technologie daf ma neex te am na ay question yu bëri yu ma bëgg a poser sax ci affaire bi mais bon voilà euh, bu nit ñi comprendre déjà l'essentiel rek c'est bon alors ban conseil euh, ngeen di jox képp koo xamante nii day bëgg day yëngatu ci wàllu mbay ak bépp jeune boo xamante ni aussi tey moo ngi entreprendre wala bëgg na liggéeyal boppam ci ay projet Mm, alors déjà première bi mooy gëm sa bopp. Mm-hmm. Euh, gëm sa bopp pour man dafa dafa am solo et se donner toutes les chances. maanaam tey du caaga ne effectivement war nañu jàppale mais am na loo xam ne yaa war a jàppale sa bopp bu bëri. ça c'est sûr yaa war a jàppale sa bopp xam naa ñu nekk si biir tool yoo xam ne euh, je t'assure que dañoo bàyyi dañoo amoon nañu possibilité am ay visa dem liggéey bitim réew wala ñu sax ay bitim réew ñu leen di woo pour ñu ñëw liggéey seen entreprise. dañoo bàyyi loolu fekk amaguñu woon sax lu ñu mën a dixième wala centième sax li leen di li leen jox foofu mais ñoom dañu am lu ñu gëm ba pare joxe seen bopp. ok loolu aussi dafa am solo. ok voilà loolu gëm sa bopp bëgg li ngay def mais aussi am xam-xam bi. xam-xam bi mhm. aussi am na si solo loolu. ça c'est sûr ñu sàkku si xam-xam bi léegi nag boo liggéeyee nag def lu tout. Mhm. après am na loo xam ne moom lu ñuy olof di wax rek loolu ne fàng kenn du ko jeex. maanaam boo liggéeyee moom ba affaire yi ñëw nii moom yaakaar naa. Mhm. parce que comme ni ma dégg benn investisseur wax nee na yaa du cash maanaam projet bu ñu lay financé moom am na fi xaalis bu ñu financé am na fi mais nag bu ñu jàpp nii rek dañuy toog nii rek ñu toog nii xaalis bi di ñëw man ñun avant financement tool di am di lever ay fonds voilà da ngay dem jàng ñuy waxee parce que loolu des fois ñii dañ koy fàtte mais mën nga am projet mais projet bi da nga war a défendre wax ki ki lay jox xaalis bi wóolu ne la yow mii wóolu ngaa joxe xaalis parfois investisseurs États-Unis nee nañ ils n'investissent pas sur un projet mais ils investissent sur une équipe wala une personne maanaam pour wax ko si olof moom. ñoom mhm. duñ duñ duñ jox xaalis projet. Mhm. ay nit la ñuy jox xaalis. kon mhm. nit bi war na man a am benn taxawaay benn état d'esprit. mën a xam li muy wax fan la war a xam li mu bëgg a def si projet bi bu ñu ko ko joxee fan la koy jëmee yooyu yëpp ay ensemble yu am solo ñu war a bàyyi léegi benn benn conseil bi mënoon jox sama moroom yi surtout ñi xam ne ñoo nekk si mbay mi bu ñuy def ay projet di laaj financement nañ organiser wu sous forme GIE. E. ok GIE e. boobu bu ñu defee pàcc am benn teer bu vingt cinq hectares. Mm-hmm. ut comme que mbéy lañ gën a maîtriser léegi ñu ut benn financier benn gestionnaire bu ndaw. ut ku leen di jaayal ci marché bi. boobaa xam nga GIE bi entreprise bi day mat comme li nga wax sànq pluridisciplinaire ñoom ay mbéykat lañ ñu ut benn gestionnaire ut benn ñooñu bu ñu demee banque bu ñu dem fëgg ne la ñun ñu ngi ay ay ay am nañ suñu tool mën nañ bay mm-hmm. banque bi ne ne ah, kon ñi am nañ compétence mais banque bi day bëgg a est-ce que mën nañ gérer xaalis xam nga sax day mën permettre tey ñi nekk euh, université yi mën a am ay liggéey yooyu noonu koo xam ne quatrième année la nekk nga ñëw dugal ko si benn projet voilà nga dugal wu su format GIE loolu am na solo lool benn modèle boo xam ne nekk nañ di si travail te damay bëgg di toog si ay jotaay yu mel nii di ko wax ñuy si organiser wu su format GIE nga xam ne ki leen di mottali noonu dina mën a dem défendre ay dossiers de financement voilà quoi nañ mën a jaay donc en gros voilà ok ça c'est ça c'est hyper li nga wax noonu quoi alors euh, je pense que euh, li nga wax nii déjà comme li nga wax sànq ne nit ñi dañoo war a jàng ni ñuy communiquer pour mën a wax pour défendre seen projet man je te rassure tey jii nii jox nga ma envie pour que ma dem investir ci benn tool franchement. te xam naa ne boo oytul dinaa dellu dinaa dellu Saloum jëm fu am benn lopin bu mu baax tu vois. après ah, après parel nag dinaa la contacter après pour nga ñëw nga ñëw jàpp ci logistique bi comme ça mbay mi mën a. dox quoi <laughs> alors incha allah alors maa ngi lay remercier bu baax Mouhamadou Lamine ci sa disponibilité parce que je sais que yombul def épisode ci koor gi mais je pense que voilà j'espère que nekkoo séeréer ah doo séeréer. mu ne nekkul ah voilà voilà kon baax na comme nekkoo séeréer rek ah, jeex na voilà c'est bon comme nekkoo séeréer rek jeex na quoi ba du am problème quoi ah, séeréer yi ñoom ñoom ba bëgg ñoo bëgg lekk quoi nekk tool i i i waaw kon baal baal ma fàtte wax jooju <laughs> alors pour terminer Mouhamadou lan moo nekk mhm. sa mot de la fin ak fan la la internautes yi ak baykat yi ci boppam mun a fekk sur internet wala sur ay euh, par téléphone wala yu demee noonu waaw dèjà El Hadj di la jaajëfal si si dalal bi merci beaucoup di mm-hmm. jaajëfal tamit ñi nga xam ne ñoo lay say auditeur di lay déglu man ñi nga xam ne si laa bokk. Euh, dinaa gën a bàyyi xel émission yi parce que gis naa ñu bëri di ko di ko rafetlu puisque aujourd'hui danga ñu invité suñu làkk ñu mën a discuter di échanger parce que ñun comme làkk bi ñu nàmp la fi lañ gën a mën a xalaatee idées yi fa la gën a ñëwee dèjà di rafetlu émission bi di la ñaanal di la gën a jox aussi courage di wax ne ngi def émission bi ngi def lu am am solo si euh, si si si si écosystème alors sama moo de la fin déjà peut-être voilà comme li ma waxoon rek. Mm-hmm. et vraiment di invité jeunes yi man pour man jamono ji ñu nekk nii jamonoy xel la. jamonoy xalaat la jamonoy proposition la jamonoy mindset la. maanaam du jamonoy ay xeex xam nga saccagé jamonoy kii maanaam dama jàpp ni même nit ki bu doon am lu la lu la tiis wala loo bëgg a naxawlu am na léegi ay méthodes yu gën a intelligentes yu gën a. mature yu gën a am personnalité yoo xam ne mën nga si wane sa naxar daal bu fekkee am nga lu la naxari te bu fekkee sax li ngay naxari li ngay naxarloo sax am na jaar na yoon donc bu ma sañoon daal suñu moroom yi nga xam ne Kenya lañ nekk di développé nigériens yi suñu bokk yeneen yi buñ nee sa bitim réew mhm. buñ mën a jàkkaarloo wala di xam li ñuy def yi nii ñu am sag daal parce que man mhm. du ma du ma rafetlu lool wala damay am kerso lool bu ma génnee di wax ak ay partenaires yu nekk à l'extérieur ñu ne ah ñun ne dégg seen ndaw yi saccage yooyu xam nga da ngay am kersa te boo sañoon nga mhm. nga wane ne ñoom ni ñu civilisé ñun tamit noonu la ñu civilisé ëppale ñu dara li ñu seen xam-xam rek parce que ñoom sax mhm. ñaaree dañuy ñëw di ñu laaj si xam-xam donc bu fekkee ñu image bi ñu joxe daal am na solo day tax ñu ñu mën ñu respecté nekk donc bu ma sañoon daal mhm. ñu gën a bàyyi xel suñu taxawaay voilà quoi am na ñeneen ñu mën a gën a taxawee loolu yenn yi. macha allah macha allah alors fan lañ leen mën a fekk seen numéro seen email et tout ça. mais di ko di nga ko di nga ko wax mais après dinaa ko bindaat aussi ci suuf quoi. juste bu paree rek mën nga ma envoyer mail. Mhm. waaw con contact contact arobase point com mhm. T O L. Mhm. B I C bu ñu bindee foofu suñu service commercial ñu daal di tontu numéro téléphone boo defee soixante dix euh, neuf cent quarante quatre vingt quatorze ok macha allah c'est cool donc buñ paree épisode bi envoyé ma toutes les informations yi nga xamante ni bëgg nga ko partager ak nit ñi. ma def ko ci description mhm. podcast bi comme ça képp ku koy déglu après euh, mën a jot aussi mhm. information yi pour euh, pour mën a voilà pour mën a leen contacter incha allah. alors merci beaucoup Mouhamadou Lamine euh, ci participation ci podcast bi di wax aussi communauté bi yëpp que ubbi nañ suñu ay buntu pour yéen képp koo xamante ni entrepreneur entrepreneur nga di innover soo ñu contacter rek dinañu invité fii euh, ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom ngay def pour que sénégalais yëpp jot ci àdduna aussi euh, xam ne Sénégal Afrique dañoo taxaw si comme ni nga ko waxee léegi rek dañoo toog ci jamaa amuñu lenn loo xamante ni dañ koy wuti feneen lépp a ngi fi il suffit juste ñu bëgg ko dox ci dox jëm ci euh, et avec l'aide de je pense que dañ koy réussir Sénégal briller dans tous les domaines alors maa lay remercier bu baax merci à tous les amis ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen semaine incha allah avec beneen épisode ciao